aca kon euh, aca kon ca kaw nag ca kaw a kaw kama fa daan fekk te na man di ko fa fekk mooy Serigne Abdou Salam Sarr sama xarit mu ni ma manite maa nga ca Gossas le 24 décembre incha allah waaw jërëjëf sama waa ji kontaan naa ci yow yée baax éé boroom saabu yi waaw waaw baax na ba nga am ca ak ba nga maa nga bëgg bàyyi rek ma dem seeti ko ah Issa Dangoura maa ngi koy nii bu baax a baax El Hadji Ba maa ngi koy bigee di bigé jibi ba bu baakha baakha baax di bigé Papa job di bigé zis Brown yee kooku sama xarit la dak zis Brown ah kooku sama xarit la mang koy invité ci sunu F24 décembre bi mu jóge ci Colobane ñëw ko sax woné bopam ay fay mang koy nuyu Binta sar bëgg na ko bay Modou Yaddi té mang koy bigé Lamine ndjay mang koy nuyu bu baakha a baax El Hadji Ba koy bigé waaw waaw néna ma momit le 24 lay wajal di ye Laat Diop Touba khadim Lum Lumis nak Esprit Gossas TV am nga ay ay ki de am nga ñeneen ñuy waaj bis fi de waaw baax na waajalal Fatoumata Bintu Diallo maa ngi koy biggee Oumar Diallo itam ma biggee gi maa ngi koy biggee Kéba Aja nuyu naa ko Dame Kunta nuyu naa ko Pulo maa ngi koy biggee sama xarit la moom sama nit la maa ngi koy biggee Mia Diouf jox naa ko wàcc waaye bu baax a baax Marie Mariam maa ngi koy biggee bu baax a baax Absa Gueye maa ngi koy biggee waa Esprit Gossas TV nee nañ jours yi mooy treize waaye yéen yéen yéen yéen tiitoo leen ah man de tiit naa ma yéen bis ma dikk na di waaw ah, baax na ah ziare Fall Damel Sam Seck maa ngi koy bëggee bu baax a baax Cheikh Wadite maa ngi koy nuyu xam nga édition la chaque année la benn yoon lay doon ci at mi moo tax rek mu ngi noonu daal mu ngi noonu daal moom daal Maodo Kane maa ngi lay nuyu. ah ngañ joxum ba maa ngi lay nii bu baax a baax Mor Seck maa ngi lay bëggee waaye nag le maire Adama Diallo waaw DG Petrosen Holding SA waaw wax dëgg yàlla daaw moo porté def lim ci mën ak lim ci mënul ren jiit mu fës seen faa jaaraat defati lu ni mel kon nag Adama Diallo ci sama kàddu gosaas yëpp bég nañu ci yow ndax ay doomu gosaas la ñuy sargal nga jóg taxaw ni sargal bii kat noppi naa ngir taxaw lépp loo xamante ni lu ca war a dem la ma def ko jàpp jàppale leen ci bu baax a baax a baax a baax a baax ah kon nag Adama Diallo ngàcce ngalaama maire bu gosaas jërëjëf esprit gosaas TV. and nañ ci tamit ak maire yi nek ci département bi yépp ci laas pouy ñen la gan dam njaay papa fele kolabaan patar liya ñu ne ma jibi am wa jur ñu ne ma jaaga way honorable député nday ja ma nga fa han ah? waw nga dem mar ñu ne ma mbay chambre gosax ñu ñëwaat président conseil départemental maître ku yatt sama xarit ah ak jeunesse bi yépp ñom asan ñom ñoom Ibrahima ba ñoom ah ñoom xaar ñoom nee nañ ma dañuy ñëw waaw waaw waaw waa somb yi ñëpp nee nañ ma dañuy ñëw <laughs> waa baax na baax na daal ah ñi waa bis baa ngi noonu nag na ko ñëpp waajal gaañe kon ma jox leen dig daje ba suba ak jàmm dama leen a namoon jërë ngeen jëf.